asalaamaaleykum yéen waa Koussanar asalaamaaleykum yéen waa département Tamba maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk seen tur ak seen sant tey le moment luy jot jot na pour sensibiliser population Koussanar ak population département Tamba ci wàllu politik bi ak ci wàllu ni ñuy falee nit ñi ak kan lañ war a fal loolu moo ñu loolu moo tax ñu jóg tey di wax ak yéen xam ngeen ni ci ay jamono jamonoy du Diouf amoon nañ fi benn député bu tudd du Sorel Ndaw loolu moom on a été un peu satisfait ci jamonoy Ablaye Wade am nañu fii Haut Conseil de la République mooy suñu papa jooju tudd Massamba Ndiaye amoon nañ fii dans le département de Tamba benn ministre boo xam ne nekk na député ñetti yoon am ministère plein ñetti yoon te mu résidé woon fii ci Koussanar même bu fekkente ne Makakuli Bantan la la la la la juddoo fii ci Koussanar la résidé kenn mënu ko werante chaque jour mu ngi fi guddeeg bëccëg indil ñu fi lu baree bari léegi nag dañoo seetlu nii depuis huit ba léegi député yi nga xam ne fal nañ leen fi ñaari yoon amul kenn ku fi teg tànkam fii ci Koussanar te ñu tànnaleen leen dans la commune tànn ñaari ministre conseiller dans la commune tànn benn ministre plein dans la commune tànn ay directeur ak i PCA dans la commune loolu nag lañu ñu seetlu nii loolu il faut arrêter loolu na arrêter ñooñu noonu kenn mësu leen gis ci département Tamba wala ci Koussanar fii ñu teg seen tànk walla nga mën a yëkkati sa téléphone wax ak ñoom dañ leen a fal nii falewuñu population bi amaluñu leen benn njëriñ loolu lañ bëgg mu arrêté ci biir Koussanar fi yéen waa Koussanar li ma di wax mooy ñun avant mënoon nañ wax ne suñu mag ñi fi nekkoon ñu ngi politique temps boobu xëy na mën nañ wax ni xale yi fi nekkoon seen njàng demewul noonu mais tey si tey jii am nañ fi ay intellectuel ak i cadre yoo xam ne mën nañu représenter fu ne du ci wàllu ministère di ci wàllu euh, yore conseil départemental du fu nekk am nañ ko actuellement ba tax na loolu lañ bëgg fi mu nekk nii vraiment ñu soobu ci loo xam ne dañuy am suñu indépendance bopp suñu moomeelu bopp parce que mun nañ ko am nañ ko léegi man li ma leen di wax mooy élection locale yi ñëw nii nañ ko jàpp loo xam ne moo gën a dëgër sax élection présidentielle yi muy ci commune bi muy ci conseil départemental muy ci élection législative bi ñëw li ñuy proposé waa Koussanar mooy gis ngeen actuellement élection yéen intellectuels yi politique xam ngeen ne ku ko deful doo mën a defal sa dëkk dara doo mën a njëriñ sa population dara donc ñun nañu riposter nañu fexe ba samp fi trois listes yoo xam ne c'est des listes ay coalition lay doon yoo xam ne c'est dans la commune euh, sampaat beneen liste boo xam ne day dem conseil départemental ñu concourir euh, conseil départemental ñu préparer législatif bi comme duñu tànn ci député yi ñun ñu am suñu député bopp ñu am suñu liste bopp boo xam ne day sillonner le département de Tamba pour que vraiment ñun ñu bokk ci fii nga xam ne fa la ñuy jëlee ay décision nañu fexe ñu def loolu maa ngi ñaan waa Koussanar ne leen situation bi nga xam ne moom lañ nekk man c'est pas parce que damay wax pour ñun le commis le mouvement là dafay sensibiliser la population là ma bëgg leen xamal ne leen élection locale yi ñëw nii muy ci département Tamba muy élection législative bi ñëw nii le moment là dañuy sensibiliser nit ñi dañuy xool ñi nga xam ne liste bu ñu fi gis ñu gis ni Koussanar satisfairul ci biir liste bi ñun dañuy wax population bi ne leen bu leen voté bi dañuy xool list boo xam ne vraiment waa Koussanar bokk nañu ci ñu vote list boobu mais dootuñu fi vote benn list encore boo xam ne waa Koussanar bokkuñu ci muy conseil départemental muy législatif bi ñëw bu soobee yàlla fas nañ ko ay na ak fu ñu mënta ko jaar ci biir département Tamba dinañ dinañ wër département bi sensibiliser nit ñi ne leen ñi ngeen bëgg fal nii ñi nekkaat ci list bi nii ñi amaluñu population bi benn njëriñ benn njëriñ mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñi fi nekk léegi nekk fi ay député ki ay ministre conseiller ki ay ministre ki ay conseil départemental ñooñu dañoo abandonné la population du département de Tamba donc ñun waa Koussanar comme ëppale dara di ci wàllu njàng di ci wàllu xam di ci wàllu lenn au moins que ñun suñu mag ñi fi nekkoon sax fexe nañu ba Koussanar vraiment mu am yëg-yëg ci département Tamba parce que tout les réunions là yu mag ñi fi daan am ci biir département Tamba yëpp ku Koussanar lañ koy defee gis ngeen ni Abdoulaye Wade fii la nekkoon bëggal Koussanar bëgg bëgg Koussanar bëggal ko boppam Léopold Sédar Senghor fii la nekkoon bëgg bëgg Koussanar bëggal ko boppam léegi ñun ñu toog ba daanu nërmeelu ci suuf kenn paaleetuñu kenn xamatuñu kenn dootuñu boolee ci dara yéen waa Koussanar maa ngi leen di ñaan ne leen fi mu nekk nii nañu am suñu fulla am suñu fayda ñu jógee ci domination bi nga xam ne commune bi depuis indépendance ba léegi ñu ngi toog ci suñu kaw di def lu ñu ne lu leen neex yéenewuñu dara liggéeyuñu dara ci département Tamba liggéeyaluñu population bi dara duñu dem ba dem ci kaw wax président dara lu xew na ngeen xool tey Tambacounda tey région Tamba tey région bi ñaata ñaata réew ñaata réew la la la la la la la la ñeenti réew ba juróom ana université bi bi suñu xale yi war a jàngee tey ñu naan orienté wu ñu les élèves eh, ñi ñi am ay bag Tamba warul am université dem leen ci lycée Mame Cheikh mbay ngeen xool lycée baa ngay waaj a daanu ci ci ci kaw ci kaw élèves yi na ngeen ñëw ci lycée Koussanar fii ngeen xool lycée bi gën a baax ay résultat dans la région de Tamba man maa ko wax su ngeen ñëwee ci lycée bi bu ngeen xoolee melukaanu lycée bi ñaata abri moo fa nekk y a huit salles d'abri yoo xam ne yii ay quarantaine la loolu dafa ñaaw tey Koussanar Koussanar ça fait quarante cinq mille habitants te ñu ngi saxoo ak ñeenti commune yoo xam ne yii eh, bu ñu xëyee ci Koussanar fii la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy faje seen soxla waaye ñooñu yee yeeyoo nañu poste santé ñooñu li ñu yeeyoo mooy centre de santé centre de santé la ñu yeeyu ku feebar ñu dem paj la foofu ñu bañ évacuation yi nga xam ne ñu ngi koy def Tamba Koussanar centre de santé la la la la la tey donc ñun waa Koussanar bu fekkente ne dañuy politique gis nga ñun troisième âge man de ci laa bokk sensibilisation rek laa fi nekk lépp lu fi xewati loo xam ne lii du yoon man dinaa taxaw ma xeex ko ba fu ma mënta ka yem mais dañuy ñaan ni lii moom na arrêté di tànn ay responsable yoo xam ne ay post responsabilité politique yoo xam ne dañ koy tànn ci benn dëkk loolu moom ñaan naa loolu moom nañ fexe ñun waaku Koussanar ñu arrêté loolu te bu soobee yàlla ak yonente ba duñ ko yemale fii fu ñu mënta ka dem ci presse bi dinañ ko def bu soobee yàlla lii laa amoon lu ma leen di wax maa ngi leen di gërëm di leen di sant di gërëm waaku sanaar yi nga xam ni ñoom ñu ngi ci biir réew mi di fa di fa di fa di fa am seen wërsëg di ko delloo si ci dëkk bi di gërëm waaku Kusanaar yi nga xam ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi bitim réew ay Espagne ki ay France ki ñoom ñëpp li ñuy li ñuy def ci dëkk bi gis nañ ko gërëm naa leen sant naa leen wasalaam.